laa bëgguma woon dénkaane mm-hmm. suñu kër Latmingué la foofu lañ am kër Kaolack bañ fa demee dañu doon luye mm-hmm. donc xam nga loolu métti woon na di fay location sa commerce nga indi luye boutique di jaay c'était si métti woon na ci moom mais pour doomam yi mën a réussir à l'école moo tax mu def sacrifice boobu mm-hmm. jógee Latmingué tuxu loolu te premier nuit à Kaolack xam nga yooy sama papa guddi boobu <laughs> mu ne sa yaay moo ñu jëlee Latmingué indi ñu fii yooyu di ñu bëgg rey <laughs> c'était une première nuit très chaude mhm. mais ah, il fallait faire un sacrifice pour que ñu mën a continuer parce que amuloon collège moo tax ñun bi ñu demee ba màgg ba ki yàlla suturaal ñu dañu delluwaat village mhm. les premières quatre pla euh, euh, salles de classe su collège bi euh, suñu famille ñoo ñoo ko sa papa moom fan la jógee dem lan ménge sama nag Beyrouth libanais la mhm. man sama papa et mon grand-père sama maam sama maam bu góor ki jur dafa bokk ci eh, naaru libanais yooyu nga xam ne ñoo jëloon bato bi doon dem Amérique bato bi taxaw dakaar ñoom ñu wàcc. ñu wàcc. ñu wàcc <laughs> dëkk <laughs> ñu wàccee daal ci lañ tasaaroo nag ñii toog dakaar yenn doomam yi toog dakaar ñeneen ñi tas ci biir. Eh, ci biir Sénégal man ci sama sama ci la demee lakk nañu. kon yow américaine nga naroon a doon. loolu laa naroon doon. xanaa mu sa papa sa papa moo warul woon a wàcc. waaw nga warul wàcc. dëkk bi mu wàcc dëkk bu la di bët ma la. xam nga li nga am lan méngé doo ko am ba de. ah lu la wax. macha allah c'est très léegi ñu ñëwaat ci toujours ci ci relation entre